nervi yi lu nekk lañ fi jéem a def mais ñun duñu leen wuyu si provocation ndax nekkuñu fekk nekkuñu pour loolu lu mu ndaw ndaw am na étudiants yu jaar suñuy loxo ñu yàgg leen encadré donc ñun tey ñooñu dañ woon ba un bon exemple si ñi ñu doon gis démb moom la ñuy gis ba tey ñun ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci ISEC depuis ay at dañoo xëy di réclamer tey li nga xamante ni toll na ci fanweeri million ci xaalis yoo xamante ni Mamadou Diop daf ñu ko ameel mu toll si juróom-ñetti weer ba fukki weer ak juróom yoo xam ne jotuñu suñuy salaire te loolu li ko waral mooy arrêté de nous fay faire. na de ay waxtaan ak pour mu fay ñu ñu dem ba jëmmi jamono mu dugg ci nous yoon teg ko loxo ñu toog di des déglu ci déglu une ko lettre ko le jeudi 11 juin ni ko ah salaire nous ñu Nous ay nous jotuñu ko de moom lañ bëggoon nga wax ñu ci dara ko avocat ko ñu bindaat ko jox ko sunu avocat ndax boobu dañoo wut avocat jox ko avocat bu avocat bi nekk di traité waaye waxul dara ba mu génnee nag ba léegi ñu jëm si ñu ko jege wax ak ñoom ni leen seen kii de daf ñoo ameel lu toll juróom-ñetti weer moo ci gën a ndaw ba fukki weer ak juróom lu mu toll si ay millions yu bari léegi ñoo bëggoon ñu toog a waxtaan ak moom wax ñu kañ la fay mu gër si dëkk bi ne moom du ñu fay dara amee lu ñu tus duñ ko du ñu fay tey du fay suba léegi nag loolu moom la ñu génn di ko ñaxtu te dañoo bëgg moom Mamadou Diop mu fay ñu suñu xaalis parce que dañu koo liggéey ay weer lu nekk nag mi ngi koy wër di wax li ñu bëgg nag mooy amul waxtaan amatul def dara li ñuy xaar ci moom mooy mu fay suñu xaalis te danañu fay suñu xaalis incha allahu rabbi lépp lu ñu yoon may nag danañ ko def bëggoon nañ ko yóbbu si yoon mais tribunal dafa nekk ci ay grève moo tax looloo tax ba tey yoon demaguñ ci mais danañ ko yóbbu si yoon mu fay ñu suñu xaalis waxtaan nag amatul wala bu waxtaan di am condition waxtaan boobu ñun ñoo koy tëral ñu nii ak nii nga ñuy fayee moom nag nee na daw ci dara bañu si dara ah fële la alhamdu ku la ameel bor nek mo munul bañ dara ci lim la amel yaakaaruma yow miñ ko amel di nga am lo ci bañ wala di nga am lo ci ragal donc ñi ngi koy ñi ngi wax ñepp nak muy opinion national international ne wuñu xexuñu sagawuñu defuñu lu bon waxuñu ko lu bon mom nak mi ngi wër ci dekk bi wax lu ko neex lu ko neex na kon ne di wax mais liñ koy xamal moy suñu xaaj danañu ko fay te état japp na ne le 1er septembre école dañu reprendre ci enseignement supérieur buñu fayul ISEG moom du bokk si ñuy reprendre te loolu ñu ngi ci jël à témoin le président de la république monsieur Macky Sall di jël le ministre de l' enseignement supérieur ah monsieur Anne di jël autorité yëpp à témoin ci affaire boobu suñu fayul cours du am ISEG.